72 heures sans répit, où nous avons sillonné les 30 écoles de la commune de Mérina Dakar. Nous avons été dans chacune de ces écoles pour faire l'état des lieux, regarder les problèmes auxquels sont confrontés les élèves et les enseignants de la commune. Regardez aussi l'état des infrastructures que nous avons réalisées dans ces écoles. Nous avons, au-delà de la visite de ces 29 écoles, visité des postes de santé dans la commune. Nous avons visité des cases de santé. Nous avons aussi profité de l'occasion pour visiter des plateformes multifonctionnelles et les périmètres maraîchers que nous avions réalisés à la coopération internationale décentralisée. Trois jours qui nous ont permis, ai de faire l'état des lieux. Certes, beaucoup de chemin a été fait. Sur les 29 écoles de la commune, nous avons réussi à clôturer 22 écoles. 22 écoles, c'est appréciable, mais il nous reste encore 7 écoles que nous devons clôturer pour sécuriser l'espace d'éducation de nos enfants. Nous avons pu mesurer quelquefois la dégradation et la vétusté de certaines salles de classe. Rien ne vaut le contact et nous avons pu sur place prendre des décisions importantes de réflexion. Nous avons pu sur place prendre des décisions d'investissement qui, je l'espère, avant la fin de l'année, seront totalement réalisées pour mettre nos enfants, nos éducateurs et l'espace scolaire dans un parfait euh, environnement, un parfait environnement de convivialité et de respect. Je voudrais donc remercier le sous-préfet qui nous a accompagnés et qui a donné à cette tournée son caractère économique. Parce que ce n'était pas une tournée politique. C'était une tournée où les organisations sociaux de base, les associations et les ONG qui s'investissent dans l'économie, dans l'environnement caérien nous ont accompagnés, je vous parlais d'AFADEC. Mais aussi, les entrepreneurs et les hommes qui travaillent dans la commune ont pu quand même nous accompagner pour pouvoir nous permettre véritablement de réussir cette tournée et de lui donner son caractère économique parce que ce qui est important, c'est de connaître le problème des populations, mais c'est surtout de trouver des solutions concrètes à ces problème là Et je crois que pendant les 72 heures, nous avons pu, grâce à Dieu, grâce aussi à la ponctualité des équipes, grâce aussi à leur abnégation, faire un tour complet des, différentes, euh, des différents établissements, faire un tour complet des CM que nous avons visités aussi et véritablement permettre à l'autorité de s'enquérir des difficultés. Et surtout, ce qui est important, c'est de prendre des décisions sur place qui doivent permettre d'améliorer le vécu quotidien de nos élèves et de nos enseignants. Et je voudrais donc profiter de ce point de presse pour dire cela. Et remercier quand même les populations qui nous ont accueillis. Quand je parle des populations, c'est d'abord les populations qui sont de très près liés à l'espace scolaire. Mais au-delà de ceux qui travaillent et qui sont liés à l'espace scolaire, vous avez vu avec quel engouement les populations, pendant ces trois jours, nous ont, reçus, nous ont, reçus, nous ont accompagnés et nous ont félicités pour les efforts que nous avons déjà entrepris, mais surtout qui nous donnent le courage de pouvoir continuer et de dire peut-être, Inch'Allah, Yefi, Dina Manadem, Bassori. ñi nga xamee ni ñëpp ñoo nekk ci jataay bii ndax tey bis la boo xam ne dañuy tënk li ñu def ci ñetti fan yi muy ñetti fan yoo xame ni dañuy xëy bu 9h jotee bala ñuy wàcc timisi jot ñu dugg ci àll bi ànd ak sous-préfet ànd ak moom ànd ak conseil municipal yi ànd ak adjoint au maire yi ànd ak directeur d'école yi ànd ak association yi ànd ak président commission yi ànd ak conseil municipal bi pour dem dund li nga xam moom la école yi di dund ñu xool jéego yi nga xamee jot nañ ko def fan la toll ak li nga xam ne moo ñu desee nga xam ne bu ñu ko defee yëf yi dina gën a baax yàlla dogal na def nañu ñaar fukki école ak juróom-ñeent def nañu ñaari CM def nañu ay poste de santé def nañu ay case de santé def nañu ay plateforme yoo xam ne jigéen ñee ko moom dugg nañu ci tool yi nga xam ne itam grâce à la coopération décentralisée def nañ ko fii ci Lukuk ak ak Njaxa yooyu yëpp dem nañu xool ko teg ci suñu bët xool li nga xam ne jot jéego yi ñu jot a def mais xool itam li nga xam ne moo ñu dese. visite bii nag dafa war a tax ñu gën a yokk suñu góorgóorlu te teewaayu El Hadj Pape Gadiaga fii nekk na loo xamee ni nii suñu ñaanalee. suñu xel dina gën a dal ci ni li nga xamee ni moom la ñu bëgg a yeggale yàlla dinañu dimbale ñu yeggale ko kon ma koy sant bu baax ci teewaayam di sant bu baax teewaayu sous préfet ak gunge bi ma gunge di sant ñi nga xamee ni ñooy adjoint au maire yi di sant ñi nga xamee ni nii mooy kilifa yi nga xamee yëpp dama àndoon ak ñoom ci tournée bi rawatina itam euh, le président Maxafal bi nga xam ne premier jour dafa bàyyi lépp lu mu doon def ñëw ànd ak man ci tournée bu njëkk bi. pour wan ni man ak moom jàppoon nañu jàppoon nañu pour bokk liggéey bi pour taxawal liggéey bi ba nga xamee ni incha allahu lépp loo xamee population yi bëgg nañ ko dinañ ci taxaw dinañ ko liggéey loolu mooy li nga xamee moom la ñu def bi ñu waree école yi dugg ci jumtukaay yi nga xamee moom la jigéen yor dem ci seem yi dem ci lycée bi gis nañu li nga xamee ni nii moom la nit ñi di tawat dëgg la lu bëri def nañ ko waaye bu yoon jeexul waaxu sil du jeex te yoon nag jeexul am na lu ñu fa gis loo xame ni ni daw na suñu yaram ba sur le moment dañu jël ay décision d'investissement ni lii moom dañ ko war a saafara léegi liñ ci war a saafara lépp jël nañ ko pour réfectionner yenn classes yi mettre à l'aise jàngalekat yi ba suñu doom yi ñuy jàngal bu ëllëgee ñu mën a am xam-xam ba ñu yor réew mi saytu ko ñu mën a toog seen place mën a saytu réew mi loolu mooy li nga xamee ni moom lañ doon dox du doxu puukare moo tax bi ñuy dem yoruñu musique yoruñu tama yoruñu tëgg li nga xamee ni sax mooy suñu communicateur traditionnel yi nga xamee bu ñu jógee ñu ànd ak ñun dañ leen privé woon de parole ñi leen ñun li ñuy dox liggéey la nit nag buy liggéey day dem déglu ji nit ñi ñu wax ko seen tawat li mu ci mën ci saafara ko mu def ko li mu mënul mu seet fan lay jaar ba mën leen ko defal kon nag wax dëgg yàlla sant nañu bu baax di remercier nag population yi ndax ni ngeen ko gisee fu ñu dem dañ ñu teeru wax ci ñun wax ci ñun lu baax wax ni am nañu yaakaar ci ñun nit nag su amee yaakaar ci yow ba pare jox la boppam moom wàcc na li ci des nag mooy yow la mu soxla nga war ci taxaw ba jàppale ko ci ba na mu ko bëggee mu mën ko amee noonu réew mi bari na fu bëgg làmp bari na foo xamee bëgg na ay yoon loolu yëpp waxtaan nañ ci bu buñ fi jógee li ñu ci mën a lijjanti yëpp dinañ ko lijjanti ba nit ñi mën a am yoon mën a am ay làmp mën a am dundit mu gën a neex ndox mi gën a doy bare ba nga xamee ni nit ñi dañu mën a bay noor ak nawet loolu mooy suñu ite moom la ñuy taxaw tey moom la ñuy taxaw suba bu ëllëgee ci loolu la ñu nekk incha allah ñuy ñaan nag yéen ñëpp ngeen jàppale ñu ci. taxawuñu ci ba di ñu ko bëggee ñu am ko beneen bi ci des su préfet moom ma ko yóbbante dégg ngeen ci jamono yëpp ñuy wax ni dafa am ay carte yoo xam ne dañ ko war a defaraat ay carte UEMOA ay carte CEDEAO ngeen bal ma yoo xamee ni mooy carte d'identité yu bees yi sous-préfet nee na na ñëpp dal bis bu ñu ko tàmbalee lépp lu luñ ci war a def pour yëgal ko nit ñi dinañ leen ko yëgal lépp loo xam war nañ ko def pour yombal leen ko dinañ ko def ba nit ñi képp koo xam ne war nga am kayit nga am sa kayit parce que loolu moom moo ko soso kon nee na naa koy joxaleel yóbbante boobu parce que nee na réunion bu mel nii bëggul jël parole parce que xam na ni c'est une réunion économique moom daf ñu bëgg a bàyyi rek ñun ci maire bi ñu wax suñu soxla